Talla mi nga jógee écurie Diamaguène Sicap Mbao Seras numéro 2 bu écurie Niakou Rab boobu nekk huitième combat ci biir géew bi ko defee Talibé ndeysaan mi ngi noonu ñaari xale ngi noonu ci biir géew bi ari bi woon na leen ñoom li règlement yi nangu leen bañ Takiseera ton na benn net bu mu yoroon waaye Talibé ndongo daara bés moom lañ jàkkaarloo ak Mass Seras moom lañ jàkkaarloo ndeysaan taalibe moo ñu mën ginnaaw moo ngi moo ngi amul zone moom mi nga jóge fii ci ikri jàmm nga ci Kambaaw ndeysaan ànd ak ci Sodor Jibi Gueye waaye ndeysaan arbitre baa ngi leen di wax li règlement ngi nango lim bañ sifflé na génn seen diggante waaye taalibe nga arrière taalibe arrière na taalibe li muy def nii taalibe li muy def nii waa taalibe kan lay lewtool waa taalibe kan lewtool taalibe ah taalibe kay taalibe de erbi lay lewtool elbi er taalibe ndaanaan la attention cokkaas na génnaat arbi pusa daw na jël na ko jël na ko jël na ko ah, ko bak seela daan na waaw Bac Seras Bac Seras daan na ko daan na Talibe Talibe daa songu bi baaxut Bac daan na ko yoro bi mi ngi noon Bac Seras daan na ko daa rëpp def ma Bac Seras Bac Seras ngay waxi waaw waaw la ñàkk la jógee ndeysaan yaxay lala xale noonu daan na jël bu rëy ndeysaan waaw waaw noonu ndeysaan di waxtaanal ko soom d'accordul d'accordul ndeysaan daa joomi combat bi daa gaaw combat bi daa gaaw ndeysaan mi ngi noonu